alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulillah imam asalaamaaleykum wa rahmatullah ñuy wax waaleykum asalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci seen nuyo di nuyu mboolem mbokki jullit ñi ñuy déglu alhamdulillah aouzu billahi mina shaytani rajim bismillahi rahmani rahim wasalatu wasalaamu ala mawlana rasulillah muhammadin fatihi alxaatimi wa ala alihi xaq qadri wa miqdaar azim wa radiallahu an saahibi alxatmiya walkatmiya mawlana ahmad tijaani ibn muhammad wa ridallahi taama ala xalifatihima fasul xatmi sirul katmi mawlana cheikh al islam xaj ibrahima mbokk yi gannaaw sant yàlla julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu nuyu bi lislaam den wax ne salaamun minallahi aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ki leen di nuyu seen bokk la seen xarit baay bi tey ñu fas yéene ëtt ëtt ëtt boo xam ne ëttal nañ ko alimaam Hassan Cissé war a waxtaane lenn ci dundam waaye ci waxtaan woo xam ne danañ ko def mu ànd ak ay lenn ci kàddoom ñu fàttalikoo ko limaam Assane Cissé yëngatu bi nga xam ne doon na ko def ci diine lislaam lenn ci yëngatu bi ndax mënuñoo indi lépp incha allah imaam buñ ko waxee imaam la nit la koo xam ne ku nekk mën naa wax ci moom ndax imaam dafa nekkoon di jant boo xam ne kenn ku nekk rek da foogoon ne yow la tiim ndax lan yëngatoom bu sell bi nga xam ne mu ngi ko doon yëngatu ci lislaam nga xam ne dundam bi yépp joxoon na ko lislaam damay njëkk wax ne imam imam la te dénkaane boobu nga xam ne moom la ko Mawlaana Cheikh Ibrahima ñoom joxoon ca bi muy ndaw walla sax lu jiitu ak ganeem àddunaam moom la sàmm di ko dund ba keroog bi muy tàqalikoo xeet wi moom la mujj jëflante nit ñi ci seen kanam soog a dellu ca nga xam ne fa ko jugóon imaam julli lool lislaam rek moo ko yittee lool diine lislaam moom mooy suñ diine alhamdulilah mooy diine ji itam fa yàlla mooy diine ji yàlla tànnal jaamam yi mu sopp yàlla wax na ci alquran ne inna diina indallahi lislaam diine fa yàlla dëgg-dëgg mooy diine lislaam yàlla wax na ci alquran ne wa man yabtaxi xayra lislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi laaxirati min alxaasirin képp ku tànn diine ju duwul diine lislaam yàlla du ko nangu ci yow te su àllaaxira dana bokk ca way perte ja lislaam boobu nga xam ne dundam bi lépp moom la ko sedd ay guddeem ak i bëccëgam moo tax ku ko liggéeyal la ci àdduna bi gannaaw boo xamee ne ubbi na Amérique dem na ci réew mi nga xam ne mooy Afrique du ubbi na ko am na waxtaan wu ma ci seqoon ak moom xanaa su ko def ñu toll bisimilah. yàlla mi nga xam ne dara teewu ko te dëgg-dëgg mooy def keneen defut jot naa invitation pour dem fekkee ji international conférence bi ñu doon def ci Afrique du Sud Sud arabe yi di ko wax ci ahlil ard sommet de la terre sommet mondial bu nga xam ne adduna yëpp fa daje. bañ ñu jóg loolu mooy la ñu yëkkati woon pour teewe ci sommet boobu waaye bañ demee ca bés bu njëkk ba ba ba ba teewe ouverture ba daanaka lañ tàggoog sommet ba dugg ci suñu liggéey xaqiqatan keroog ca bés bu njëkk ba muy président bi taaba mbëkkee mbëkkee oo nañu toog ñu ñetti waxtu la xat-xat ndax ñaari junne ak juróom-ñetti téeméer ci ay ONG ñoo fa teewoon biir ONG yooyu ñu tànnaat ci ñaar fukki ONG ak benn pour ñu war a toog ak président bi ñu boole ci ca biir toogaay boobu sax ñu ne imaam waxtu président bi gisanteeg nit ñi ba pare dafa war a wéet ak imaam ci boppam loolu yëpp may yàlla sax bañ ca génnee nag ba waa dëkk bi yëg na ñëw nañ ca lañ tàggoog xamee boobu même jataayi ñaareel ba ñu waroon a toogaat ak président bi sax ñun demuñ ci ndax dugal nañu ci kaay jiite ajjuma Durban kaay ubbil ñu Zawiya Cape Town kaay ñu gàmmool la ci Cape ci Durban kaay joxe conférence ci biir Johannesburg ci boppam conférence moom xam ne ña ko oote ci suma tur lañ ko oote ak suñ turi ONG ñun ñu oo sax organisation islamique yi nga xam ne ña nga foon bokk na ci organisation rabit alamin islami bii ngay dégg teew nañ ca suñu oote boobu dégg ñu defaat ci biir conférence bi ñu defaat conférence bu nga xam ne dañ dañoo oo organisation islamique yi pour ñu ñëw ñu itam ñu wax suñu mbir ndax lislaam a ngi ni ñu ngi koy xeex lislaam a ngi ni ñu di ko tuumaal loo xam ne amut lislaam a ngi ni ñuy wax ne diine terrorisme la diine terroriste lu ñaaw ci àddina bi tey danañ fexe rek ba tudd ci ab jullit ne lislaam ko def moo na àddina bi tëddeewul noonu Karajan Rabin ca Jérusalem wala ca Israël est-ce que tax na wax ne diine juif la diine ji santut ko loolu hmm? ñay rey ci Amérique waxtu wu nekk di dorogeew di sàcc ndax ñooñu wax nañ ne benn diine leen ko sant kon jullit bi même su fekkee ne jullit la sax su defee loolu dañoo jàpp ne jullit bu di rek moo ko war a def waaye du ne diine ji hmm? ndax yonent nit ki du naan sàngara mukk fekk mi ngi ànd ak gëm yàlla nit ki du njaaloo mukk fekk mi ngi ànd ak gëm yàlla dégg nga gannaaw yooyu ci sàcc ak naan sàngara ak yi demee ni moom lañ lañ wax loolu kon ñu ci des waxi nëpp l'islam diine jàmm la du diine terroriste du diine terrorisme baatab salaamu bii ngay gis répété na ci alquran fanweeri yoon ak ñett baatab xarb juróom-benn yoon rek la ñëw ci biir alquran ndax juróom-benn ak fanweer ñett benn la duñ benn hmm? loolu moo lay indiqué ne diine ji diine jàmm la ñu oote foofa ci biir Johannesburg koy fàttali loolu ak organisation islamique yi fa nekkoon yàlla ci xar baaxam lu mat. téeméeri nit dugg nañ ci sama loxo ci lislaam ci benn semaine boobu gannaaw bu ma fa jógee am na kilifa ku ñuy wax Arouna Kala téléphone ne ma di ma wax ne ma gannaaw boo fi jógee waa Saoudi dañ fee organiser benn islamic conference mu ne moom wax na fa ne liggéeyee l'islam fii ci Afrique du sotti mukk lu mooy sëriñ si dinañ ci bokk lu mooy ñooñ tariqa dinañ ci bokk yéen a ngi nii dépensé ngeen dépensé at dépensé at te ba léegi benn nit taxawu fi jël lislaam ci yéen imaam Assane ñëw na fi semaine bale benn semaine la fi toog fayut kenn benn dërëm lu mat téeméeri nit ñëw nañ ci kanamam ne dañuy jël lislaam yëpp lu ci moom waaw liggéey lislaam ci Afrique mënta sotti te sëriñ si ci bopp semaine boobu ci loolu laa nekk conférence yeeg daay jiite ñu gee daay jiite fii daay waxtaanal ñu daay wasifa ñu gis taali tariqa tijaan moom ñu ko fa jël xaw ma ñaata lañ bañ lalee wi wasifa ci jàkka ju mag ja ñëpp a toog ñëpp a toog teewa maa ngi fàttali ba ci bis ba ma fa jógee am na benn kilifa boo xam ne aéroport la ma dabee di ko war a chit moom itam compagnie bu mag la fa amee mu ne ma suma jabar moom moo wax ne ma kilifa yi ci dëkk bi yëpp jël nañ tariqa ba mu des yow te imaam a ngi noonu jëm aéroport pour tukki demal dab ko aéroport mu jox la tariqa balaa génn réew moom ci aéroport bu la jëlee tariqa ci mu ne nit ñi ngi préparé ñu ngi fanweer ak lu topp seeni doom pour ñu ñëw jàng fii ci daara ji te ak Johannesburg ñu ngi fay soog dem am na ay boroom alal yu taxaw daañu la tabaxal jàkka waa ji mu ne ma waxal foo bëgg jàkk ci ma tabaxal la ko ma ne ko def ko Cape Town mu ne ma ne ko nag danaa ko def ñaar benn bi Cape Town benn bi Durban fii ma dëkk fii itam dañoo bëgg nga di fi ñëw dégg lii yëpp ay ubbeeku la yoo xam ne. yàlla def na ko ci tukki bi ñu jógee fa dem Gaana day salaat la nga xam ne mooy couleur yi fa bàyyi bàyyi woon fu nekk ñu jógee fa wala fu nekk oo nañ ñu fa jógee fa dem Amérique bama ma demee Amérique itam invité nañ ma ca euh, capital building nga xam ne fa la congressman yi di daj invité nañ ma itam ci ëllëg sa state department waaye fu ci nekk suñ ne moo dañoo bëgg nga waxtaanoon ci lislaam benn laaya rek laa leen si teel qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin yahdi bihi llahu man ittabaa ridwaanahu subula salaam wa yuxrijuhum min azulumaati ila nuuri bi idnihi wa yahdihim ila siraatin mustaqim yàlla moo wàcce leer goo xam ne ak téere boo xam ne téere bu bëri dana ci jubale képp koo xam ne topp nga yooni ngërmande yàlla topp topp nga ngërëm ne yàlla yooni jàmm téere yi pour jubal ñu ñu nekk ci jàmm def jàmm dëkk ci jàmm la joxe jàmm du téere xeex hmm, hmm. l'islam xeexul lu may défendre pour défendre boppam hmm, fii ci ñun l'islam te saaroo fi ci xeex Johannesburg bala bala ba ma fay dem ameewuma paaka ameewuma lawar weer ana lan moo def téeméeri di ñu ñëw di dugg ci l'islam seen coobare bokk lañ bopp lañ ci duggee te mooy cosaan li laa ikraha fi diin fa man caa fal yumin wa man caa fal yakfur forcé wuñ kenn kum neex na gëm kum nag kum soob na weddi dégg loolu mooy taxawaay lislaam forcé wut kenn diine jàmm la yii ñuy tuumaal lislaam tey ci kaw suuf sore naag lislaam noonu lislaam yi ñoo koy rabbara ak mbëru gu leen jàpp ñu foog ne mën nañoo faagaagal jullit ñu mën nañoo effacer lislaam bi mën nañoo tuuti yonent bi sallallahu alayhi yàlla dige na te li yàlla dige mooy wéy nee na yuriduna an yutfiu nuur allahi bi afwahihim wa yaba allahu illa an yutimma nuurahu walaw kariha alkafirun waxtu wu nekk rek dañoo dañoo bëgg a fay leer ak yàlla gi ëf noonu nañ ko bëgg a def rek fay waaye waxtu wu nekk te yàlla ngi taxaw bañ yàlla bañ na lank na ne leer gi ala fokk mu mat gilee ñi weddi sax loolu na neexul mu neex leen mu naqadi leen leer gi dana mat kon ñun def ñuy wóor ni ñu ngi ci yoon woo xam ne aljanna la ñu jëmale mu ne daf ñuy wóor ñu ngi ci yoon woo xam ne aljanna rek la ñuy jëmale duwul na yéeg moto bi ci Amérique ak ci Afrique ci Sud rek lay moom ci dundam gu mujj yi dem na caat liggéey na fa liggéey ba am solo kon ba tey boobu amoon nañu waxtaan ci defoon ak moom ñu ko. jamono ji ma waa caat di invité buuri Kampala buuri Paala boobu nee naa ñëw moom ak waa këram ak juróomi téeméeri nit wala lu ko préparé nañ pour dugg ci dina ci. man ne wax dëgg yàlla man sama yaram neexut fi mu ne waaye gannaaw bàyyi doon na wax ne suma benn nit oowoon ca Amérique pour dugg ci islam danaa ko uy ji man su juróomi téeméeri nit ooxee kon toogaay amatut dama demee dama uy ji leen la juróomi téeméeri nit waaye huit cent quatre-vingt-trois sur place dugg ci diine ji moom buur bi waa këram ay doomam doomam yu góoram ak doomam yu jigéen waa dëkk ba yëpp eight hundred eighty three person ëpp nañ ko ñi nekkoon ci booda bi bëgg a ñëw pour ca jotaay ba dugg ci lislaam damaa mujj ñaan kenn ci muqaddam yi mu dem utuma ci loolu dem tuubal leen moom ñoom tuubal sax mottali na adat bi ñu wax léegi mille quatre cent personnes four hundred waaw te loolu kenn xeexut ak kenn moo wax ne man fii daa jógee ci Sénégal man kenn wala ñaar ak ñaari nit ñu ma àndal pour dem xeex ak wàccaat pour dugal leen ci islam xeexuñ leen ñoom ñoo dem ba lislaam doy leen ñu gis ne mooy diine mooy diine fa yàlla inna a indallaahi lislaam wa man yattaxi xayral islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil aaxirati minal xaasiriin ñu tànn dugg ci diine ji te duggantuwuñ ci dañ cee dugg ak mbëggeel dañ cee dugg ak cofeel ak itte ju rëy rëy rëy ndax buur boobu ba mu tugal pare ma ne ko lan moo nekkoon sa diine sax mu ne man masuma am diine sama dund yëpp ci li ma neex laa ko def waaye maa ngi ñaan tey bi ma ci duggee ngeen ñaanal ma yàlla yàlla baal ma li passé lépp ma loolu la yàllay def sax ndax at tawbatu tajubu ma qablaha al islaamu yajubu ma qablahu attaa'ibu mina zambi kaman laa zamba lahu yooyu yëpp ay xadis lay jógee nekkoon juróom-ñeent at ak juróom-ñeent ci kéefar boo ñëwee ne la ilaha illallah muhammad rasulullah yaa ngi mel ni bés bala sa ndey juree bés ba nga génne biir ndey set ci benn maa ko noonu la lislaam tëddee ma ko te nag maa ngi lay bégal na nga nekkee woon buur démb ci kéefër noonu nga nekkee buur tey ci biir lislaam ndax yonente bi sallallahu alayhi wax na ne xiyaarukum fil jahiliyati xiyaarukum fil islaami iza faqahu tànneef yi ci yéen ca jamonoy réer ñooy tànneef yi ci biir lislaam su ñëwee ba jël lislaam te déggu ko waaw mu maag moom foofu de mm-hmm. damaa benn manta bu rafet comme manteau buur yi ma soloo ko ko ma ko maa ngi lay maa ngi lay solo solo manteau bi pour fedd lil ne la ba léegi buur nga ci biir lislaam waaw yoon woowa ñu mën a tëddee ndax moom gannaaw bu mu jëlee lislaam ba pare wax na la lan moo ko gën a frappé ci sa yëngatu ba tax moom mu tànn pour jëlee lislaam ci sa loxo de moom dégg-dégg yi ñu ñuy dégg rek télévision bi rek bi àddina bi yëpp fi mu ne benn kër la même ci sama kanam sax am na benn waaye bu kontaan ci tuubam gi ba ñëw di ko addiyal benn kurus mu ne ko teg ko ci loxo sëriñ bi sëriñ bi jox ma ko bala ma ko jël ndax loolu yëpp danañ ko mën a boole ci li nga xam ne mooy meññitu faydu meññ loolu loolu certainement hmm. ndax lépp ci ñaani bàyyi lay dugg soo te yonente bi sallallahu alayhi wa wax na ne man maay sama ñaani maam Ibrahima ñun mën nañoo wax na ñu itam yëngatu bu yëngatu rek suñ maami ñaan la démb suñ ñaani maam la démb waaw nii la ko yonent bi sallallahu alayhi doon defee nii la ko maamam Maulana Cheikh Ibrahim Niass doon defee waaye nag laajoon naa ko lu tax yëngatu bi mën a yaatoo nii lu tax woote bi mën a tàllee nii lii la ma tontoon ñu déglu ko. ci yàlla du ne ku jóg oote ci yàlla rek ñu la oote ci yàlla dafa laaj ñu taa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa wax ci xaqam ne. wa daa'iyan ila allahi bi iznihi wa siraajan muniran yonent bi ba muy oote ci yàlla itam daf ci amoon ndigal ndigal yi daf ci am ndigal yi doy waar damay damay fàttaliku mu nekk dina Madina Munawara mu nekk dina Madina Munawara ñu dem ci benn sëriñ moo dajale woon جمع الجوامع في السيوطي maag chef si sama rakk dem ñaan ko ndigal ba naaw tàkkusaan mu ne dem leen ba gannaaw gee ngeen dellu si danaa laaj yonent bi sallallahu alayhi wa ndax yéen elloo ngeen ndigal loolu wala elloowu diggante timis ak bi ñu del siyaate mu ne gis naa yonent bi ci diggante bi mu ne yéen elloo ngeen digal naa leen ko jox waaw kon li masaayix wax sëriñ si li ñu wax assirru yasri ma al izn maanaam mbóot dafay royaat ànd ak ndigal bàyyi daana wax ne lépp looy def te amoo ci ndigal nga génn ci ci jàmm rek mu ne ko am chance nga Adama ak Iblis mooy nañ seen borom ci yàqi alquran alquran ne na fa asa aadamu rabbahu fa gawa summa jtabaahu rabbuhu fa taaba alayhi wa hada lu tax Iblis Iblis te mooy na boromam lu tax yàlla baal Adama te baalut Iblis mbóot mi foofu mooy fa talaqa aadamu min rabbi kalimatin fataaba alayhi aadama jot na ay baat tukki ca boromam baat yooyu la utiliser yàlla nangu tuubam iblis nag lu mu mën di utiliser kenn joxu ko ci ndigal ci indiyaatam rek la jóge moo tax kenn baalu ko ba léegi itam oote jëm ci yàlla danga ca war a am ndigal dëgg-dëgg kon moom boroom diggal la woon ndigal loo xam ne tukkee na ci fu wér ñëw ci moom ba tey ci imaamatoom ndigal loolu moo ci nekkoon tukkee ci ki nga xam ne mooy maamam di Mawlana Cheikh al Islam Hadj Ibrahim Niass ci wasiye boo xam ne bindoon na ko ci bi nga xamee ne mu ngi dëddu ci zaahir wala sax lu ci loolu déglul ma lii mu ma wax laaj nga ma benn laaj sànq ndax bàyyi xamoon na ne sëriñ yi dina fi nekk gannaawam ba yàlla daf koo xamaloon li feeñ ak li nëbb ak la ñëwagut man mii rek sama yaay nettali na ma ne lu jiitu ma juddu ñetti fan bàyyi daf ko waxoon ne na taxu nee dem ne ko kan waaye kii maag sëriñ Aliou danañ koy bàyyi ko fii ci jumaa ji الله أكبر sëñ bi mujj ànd naa moom tukki ak sama nijaay Cheikh Mouhamad Lamine jëlee jógee nañ fii Dakar ànd ak moom gunge ko mu faju ji Paris ànd naa moom tukki maag sama nijaay Cheikh Mouhamad Lamine mi toog wax na ca biir oto ba maa mun a ngi toog ne ma dañ ñoo waxoon na dee nga sa bàyyi jàpp ca loolu waaye maa lay xamal ne yàlla xamal na ma ne man danaa dee sëriñ Aliou dee nga sa ko dee waaw sëriñ ngi toog ñu jëm ñu dugg ci oto bi jëm Burjul Qahira kon yéen boobu nga xam ne Cheikh Ibrahima Niass mu ko dénkoon yenn boo xam ne maamam Cheikh Ibrahima Niass daf ko garanti woon laajoon naa ko sax ndax yow mos ngaa jiite ci kanam Mawlana Cheikh Ibrahima Niass diir bi mu nekk ak ñun am na lu ma tontoon ñu dégluwaat ko. waaw keroog ba Iba Mar gaañoo Iba Mar Diop ci kaw ñu dugg ànd ak bàyyi ci jumaa ji bi si muy waxtu tàkkusaan ñu ne ana Serigne Aliou ñu ne ma ngi dëj ba. bàyyi na asoon nañu nii mooy suñu limaam gannaaw bàyyam teg ma gi ne ma taxawal nga jiite ñu ma taxaw ñu liqaam ba pare suma bàyyi dugg bàyyi fajal ko ñoom ñaar ñëpp ñu taxaw ci sàpp si ma jiite leen keroog loo yëg ci sa yaram bàyyi ma ko sant rek bàyyi ma ko sant def naa ndigal de ndénkaane loolu nga xam ne tukki woon na gis Mawlana Cheikh Ibrahima Niass sàmm na ndénkaane li rafetal ko ba ni mu tàqali ko ak jaame yàlla yi damay wax ni comme ni Baye sàmmee woon kàddu gi nga xam ne moom la ko dëxale woon bégalee woon ko ko ne ko indi sa loxo ndeyjoor ma bind la ci loo xam ne duma ma dee mukk lu du teew nga ni Baye sàmmee woon kàddoom ko nga xam ne wax na ne bi Baye nekkee ci zaham yu mujj mu ngi laaj ci ana imam ndax mu ngi ci biir ne ana asan ndax mu ci biir ne moom it noonu la sàmmee ndénkaane Maolana Cheikh Ibrahima Niass li ba wax nañ ne jiit na timis jiiti wasifa wi jiite gee soo ko dem wu ji borom Bachir tey lan nga seede ci loolu. mën naa la cee wax lu wér li nga wax ni lu wer la ñaari fan yooyu yëpp maa ngi moom duñ tàqali ko ñoo ànd julli ji timis li nga wax. ñoo ànd julli ji timis man ak moom ñoo nekk fii ci tàkku tàkkusaan muy waxtaan ak nit ñi lim mujj a def mooy waxtaan ak daayira bi nga xam ne bii waa marché Medina nañoo ko def ñu ñëwoon di ko yëgal seen conférence ne ko yow lañ ko patronné mu waxtaan ak ñoom wan leen ni daayira war a mel ak taxawaay yi nga xam ne moom la bàyyi wax ci daayira loolu yëpp mu fàttali leen ko leen képp ku bokk ci dara da ngay jéem a xam la nga bokk pay bi ku ci bokk da war a xam pay bi da ngaa war a xam magi pay bi ci loolu waxtaan ak ñoom ba timis jot mu ne ma dugal ci kanam ñu ànd dem ci jumaa ji ba ñuy dem ci jumaa ji mu ngi waxtaan rek ba julli gee ñëw fii ci këram dix heures laa fi bàyyeekoo ñu ooma boori une heure dama imaam dem na mën naa laa wax ne bon amul benn boori julli bi muy dem xëy na julli suba julli subaar julli tàkkusaan julli gee wasifa tariqaam li mu ko sant tim ci la mujj muy wasifa def dog bi jox xaalis yu bëri waa dog bi ñu séddoo ko ci bés boobu wax dëgg yàlla mu uy ji boromam bon li ñuy wax rek dañuy sant yàlla au lieu que ñu jooy ñun dañuy ree te xam nañ ne bàyyi lim ñu jàngal xam nañ ne imaam daal nit la koo xam ne pertewul bu mag a mag a mag du ma wax na ci pays bi waaye dama naan ci àddina bi yëpp yëpp yëpp rawat na monde islamique mu may nettali keroog na ma Abidjan bu ma fa demee ci yoonam tukkeem bu mujj bi mu mujj a tukki Gbagbo daf ko recevoir président bu Abidjan ne ko mi nga dajale fii ci Abidjan ci histoire yi Abidjan musta am te mbooloo moom kenn du ca chrétien wala moom yëpp ay julit la ñëw te wax dëgg yàlla lam fa dugal ci tariqa bi loolu àpp wut mooy tukkee bu mujj bii bon daal mën nañoo wax ne at Afrique ñàkk na Sénégal ñàkk na monde islamique ñàkk na àddina bi yëpp ñàkk nañ koo xam ne kii ku baax la koo xam ne kii ku doon liggéey di islam la waaye dana xam ne yàlla moo ko gën a baax. waaye nag imam ku daan waaj bis bi la ku daan préparé it ne bis bi di jaas mukk dana ñëw am na laaj bu ma ko laajoon sax ji bi xalifa xajatullahi ibrahim génne àdduna am na lu ma tontoon ñu déglu ko ku wàcc liggéey rek keneen taxaw waaw biddiw bu suux rek biddiw fépp loolu moo fi nekk ba fi bàyyi jógee àddina lëndëmoon na sax lu jiitu loolu ba fi maam Alaaji jógee ba ñuy ba bàyyi di wax ne suñuy gasal seen baay baax nañ ko soril penku bi ndax bés bu ñuy yokk jàkka ci am ku ne ko yow da dof yow àddina bi tu tukki bàyyi dem nga naan jàkk yokk jàkk ji jàkk ku fi yokkati hmm? waaye moom ma xalaatoon loola ca boobu sam demee ba jot matuwaayam yokk na jàkk ji waxuma la yokk na jàkk ji waaye tabax na jumaa fële ca Madina bokk ci jumaa yi gën a mag fii ci Sénégal dee hmm? pour ñoom wàcc di liggéey rek la waaye waxtu wuñ demee rek dana am ku taxaw pour mottali liggéey dafa am suñ benn xarit benn sëriñ yi murit sëriñ ko sa mbàkke dañoo mas a taxaw maak moom ñuy wax benn taalibeem ñoo ne ko ñëpp pare nañ yow la ñuy xaar mu ne ko ko waxati kenn parewut ku parewoon rek doo fi bàyyi lu ñuy mottali yonent bi parewut ba léegi ñu ngi mottali sëriñ Bamba parewut yow mii taxaw sa maam parewut waaw ku parew nag doo fi bàyyi lu ñuy mottali ku dem rek yaa ngi fi bàyyi lu ñuy mottali ba léegi ñu ngi ci dégg nga mottali boobu nag waxtu wuñ ñëwee rek ci loolu la ñuy nekk suñ demee itam ñeneen utuñu ci rek loolu mooy liggéey yàlla ma kaana lillahi daama wattasal wa ma kaana li gayrillahi inqataa wanfasal li nga xam ne yàlla rek la du dog mukk waaw dafay deel te dafay jokkaloo loo xam ne duur yàlla nag loolu mu jëmut fenn waaw bàyyi biddiw bu suux rek beneen biddiw fenkaat suux du am mukk maam Alaaji Ablaay ñu suuxoon na ko ca tey ba ñu seen nee na ñu seen béjjën bu foq rek beneen béjjën taxawaat taxaw du am mukk lépp loo xam ne taxawaloon na ko insha allahu rabbi tey lay gën a mat tey lay gën a continuer ci kanam waliwu pire su joxee gannaawam ci la gannaawam di gën a leer imam samp na daara rëdd na juma tabax na juma jàppale na ay nit ñu rëdd juma tabax juma ubbi na clinique ca Medina bàyyi jaami yàlla yëpp di fa dem di fajoo ji waaye imam ku déggoon jamono la comme ni maam Maulana Cheikh Ibrahima Niass déggee woon jamono looloo tax biñ nekkee ci jamonoy communication bari na góorgóorlu ba tabax taxawal rajo bi ñuy wax Alfayda FM nekk ca Medina bàyyi mu dénk ko jëmm ji nga xam ne mooy directeur ñu teewle ko rek mu wax ñi mooy yi nga xam ne moom lay indi. ci alimam Xasan Cissé bismillah bismillahi rahim man maa ngi tudd Baye Thiam ñu gën maam ñi ne ci Baye Thiam mu Zeyna ndax Zeyna mooy soo maam Zeyna Fall euh, maa ngi juddoo fii Medina ci kër yaa Fati imam ndax sama yaay bu ñu nekk xale lañ ko séddoon yaa Fati Asta moom moo ko yar ma juddoo foofu nekk fa ba mille cent cinq gannaaw bi sama yaay génnee àddina laa toxu kër bàyyi ci sama maam Zeyna Fall liggéey bu rafet boo xam ne waa Sine Saalum ñëpp kontaan nañ ci mbokk yëpp kontaan nañ ci tey ku nga xam ne préparé na la ci ndaw nga ñib si mu yëkkati matériel teg ci sa loxo ngay liggéey ñëpp kontaan tey mu xëy dëddu àdduna tey mu xëy dëddu ñi ci zaahir lan nga yëg ci bi imaam demee ak lan ngay seete ci imaam dëgg-dëgg imaam demam kenn mënu koo mel li nit yëg ndax imaam dafa bëri place yu bëri ma féete eh, wax naa ko sànq mais suma yaay yaayam lañ ko seddoon bu ñu nekk ndaw mu nekk fa ba ma juddoo néeg yaay Fati Fatimata Zahra eh, foofu laa nekk juróomi at ba suma yaay génn àddina la door a dem bàyyi ci sama maam Zeyna ma demee ba màgg eh, benn bi sama maam ñëw ci bàyyi na ko damaa bëgg a sédd bàyyi ci am imaam bàyyi na ko loolu rafet la o oh, imaam na ko léegi damay def laa bëgg sedd sédd bàyyi caat ni ni mu séddi woon yaayam sa yaay euh, loolu bokk na ci li ma booleeg usrat Baye Cissé alhamdulilah kulere googu ba léegi mi continuer ndax bi ma demee keer dix dix mën a ker yëpp ñoom laa dëkkat amul benn at boo xam ne rek nekk naa keer kenn ci usrat Baye Cissé nekk fa te dëkkuma ak yow euh, alhamdulilah dëgg-dëgg dem ak imaam métti na trop ci xol yi waaye nag lu ñu def lu may sant yàlla ndax bàyyi loolu la ñu jàngal bu neexee nga sant yàlla bu naqadee nga sant yàlla te imaam ku nekk xam na ne demam dana manque lu bëree bëree bëri ndax imaam kilifa ga du du du non seulement rek imaam la waaye dafa am beneen dimension boo xam ne def na ko ci monde bi imaam international la imaam liggéey liggéey na ci xam-xam ndax boo xoolee école yi tabax daara yi tabax teg ci rajo bi nga xam ne waxtu nekk ci xam-xam rek lay wax teg ci clinique bi da nga gis ne liggéeyal na bàyyi liggéeyal bàyyi mooy nga seeg tànk yi nga xam ne ci la bàyyi nekkoon nga jaar ci te bàyyi nee ne comme ni ma ko waxee léegi inna alladina xadamu ni naalu muraadahum saadatan wa maalan kon nag imaam de noflaay la ci moom de noflaay la ci moom ndax ko texe la comme ni ko bàyyi waxee al mawtu laa yadurru man qad saada bal huwa raaxatun li man qad rachada ñu ngi koy ñaanal yàlla lépp lu mu liggéeyal Mawlaana Cheikhul Islaam Xaaj Ibrahima Ñas yàlla na ko yàlla fay lu lu ëpp njortam lépp lu mu liggéeyal euh, humanité yal na ko yàlla fay lu ëpp njortam lépp lu mu liggéeyal askan wi ndax boo demee këram fajar maa moom ñoo taqaloo kër waaye fajar coow li nit ñi séddoo seen xaalis sa yitaa moomay yee ndax bés bu nekk amul benn bés bu fi imam di nekk lu may ne bu fajaree nit ñaa ngi ko rang muy faj soxla jaamu yàlla yi loolu ku yàlla tànn rek moo ko man moo tax loolu la bàyyi gisoon ci moom bi mu ko jëlee jox ko mission bi indi jumaa ji mu nekk ilimaani jumaa ji moo tax du ma duñ man lu may ñaanal ay njabootam lépp loo xam ne amoon na ko ci ay mébét yàlla dëgëral ay njabootam may leen ñu man koo continuer lépp loo xam ne euh, tàmbali woon na ko yàlla na yàlla may ay njabootam ñu mën a mottal mission boobu ndax dëgg-dëgg mission bi mission yi bàyyi la mission yi bàyyi ku ci nekk rek war nga cee bay sawaar kon duñ man lu may di ko ñaanal ci ñaan yàlla yàlla may ñu ñu ko muñ ko yàlla mi ñu may ñu muñ yonent bi sallallahu alayhi wa may ñu muñ Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu may ñu muñ Mawlana Cheikhul Islam Al Hadj Ibrahima ñu muñ Mawlana Seydi Aliou Cissé may ñu muñ dem ak Mawlana Al Khalifa Al Hadj yàlla ñu yàlla may ñu muñ dem ak Imam Hassan Cissé. ba ci wàllu communication Cheikh Tidiane bi tey bu rajo Dunia FM ku yàgg seq ak jotaay ak Alioune Mansour Cissé la moom it am na ay seede yoo xam ne indi na ko ci Alioune Mansour Cissé xanaa su ko defee rek ñu déglu ko bi tey bismillah. toroxlu la wàcce boppam la wax nga dëkk te li may wax nii man waxuma ko rek man jël ay bi waxuma ko taxasuban wala xasuwa iyan maanaam waxuma ko pour sànni ci kumpa. waxuma ko pour péete waxuma ko pour làmbatu dama ko wax mu doon loo xam ne lu ma dund sama diggante ak moom la <laughs> bi ci mujj mooy seq naag moom jotaay par télévision RDD ci gàmm gi passé jotaay ba mu fixil na ko ci minute yu mujj yoo xam ne xawoon naa jàpp sax na du ko def mais ba ñuy wax daf ma wax ne ma am naa programme bu rëy boo xam ne suba maa ngi ci war a séddale ay dons yu may jox pour handicap yi mhm. mais su ngeen ma soxlaa li ngeen ma soxlaa daf may ëppal lu mën ci ki doon ndax damaa si séddee sama bopp pour liggéeyal diine dëgg la yàlla dogal ma amoon ñaari programme war a dem canaba see kenn ñëw ci moom ba muy jógee canaba woo ko mu ne ma amul benn problème heure bu ngeen ñëw danañ ko def yàlla dogal bi ñëwee yi pour wan la yëg gi mhm. ñu yëg si fii ay daanaka trois heures moins biñ toogee trois heures quinze minutes nuyu anteeg moom mu dalal ñi mais chaque une heure de quarante dana wax ne neel bi tey na ko fàttewu ma leen dama ne ci ay jafe-jafe dama ne ci ay xat-xat tuuti mais maa ngi ñëw. Mhm. noonu lañ toog ba seq jotaay ba euh, mu doon jotaay boo xam ne man la maa wax ne def naa ay jotaay yu bëri ci télévision RDV dalal naa ci ku nekk daje naa ci ku nekk mais su ma su ma xaara na comparé su ma invité personnalité mel noonu wala ma invité benn groupe bu ñu paree li may jot ci ay appel ci ñoo xam ne dañ ko rafetlu di ci joxe seen xalaat bi ma jot ci afam ci si ko jot ci keneen mhm. tabarakallah tey ba ma ko woo ba ma ko wooyee sax di ko wax ne ko ah sëñ bi yow de sa émission bi mel na ni am na leen lu ci wax ndax émission yi may faral di def yëpp bu ma paree bu ma ko defee damay toog seet ñaari fan ñett seet réaction doomu adama yi ñi nga xam ne dañuy d'accord ak ñuy corriger ak nangam ak nangam mais yow sa émission mën naa wax ne ñëpp d'accord nañ mhm. ñëpp nangu su mën a ñëpp nag mooy ñi ma ñi nga xam ne ñoom faral di woo ak ñi nga xam ne ñoo ma woo ma seet li ma woo daaw ma woo ci benn émission mu tegal ma ci na ma émission bi day man bi ma koy def sax jàpp mu woon ni eh, niveau bi ko nit ñi gisee yegg na foofu mm-hmm. na ma danaa la wax na la alaaji Moustapha Cissé mooy ki nga xam ne moom a njëkk a woow bi ma wooyee moom Moustapha Cissé wan ma na ma sëriñ bi yow gàmm nga ba pare ndax li nga feeñal ci gàmm ak li nga ci leeral ak taxawaay yi nga ci wane néew nañu dégg ko ko wax. tabaaraka moom la ne kon imam Assane Cissé gàcce ngaalaa bi. Mhm. sooy xool li mu dund ci ay at mën nga wax ne fanam gudd mais soo xoolee li mu liggéey ci àddina ci daawat islamiya liggéey ko ci tariqa tijaaniya liggéey ko ci Siin ak Saalum liggéey ko ci senegal liggéey ko ci biti eh, dana xam ne kon aw fanam gudd na ndax ñu dund na cent ans et dimanche te mënoo def li ngeen mhm. ci émission boobu may fàttaliku ñu ma ci leeral na ma am na benn maire boo xam ne moo ko invité mu jóge Grande-Bretagne bi mu ñëw doonu tam jullit mais comme léegi pour dégg pour dégg-dégg rek parce que xam nga xekk ma ko baax ci daawa xekk ma mooy li nga gëm nga jëfee ko li ma gëm nga jëfi bàyyi ma ma nekk ci ba ba ba mën a loo xam ne doy na ma ci yow ma bàyyi li ma nekk fekk la ci mu ne su mu gan gi ñëwee ñu berndeel ko ba tusubaar jot mu wax ko ne ko monsieur le jéem ko woon sax da ngaa war a julli ci jéem ko woon da nga war a tuub ñu dem julli ji ñëwaat fekkaat ko fi waxtaan tàkkusaan jot mu ne ko amul sële naan ñu julli ji te ñëw. Mhm. waa ji comme intellectuel la bi ñu demee ba timis jot mu wax ko loolu mu ne ko waaw ndax mën naa la ñaan benn affaire mu ne mu ko mën nga maa may ma ànd ak yéen dem seeti bi ngeen def mun na ko dara terewuma ma ko mooy ñu ànd dikk ci jumaa ji ñoom ñu julli moom mu toog di seetaan ñun si géej jot ñu demaat ànd ak moom. bañ dikkee ca loolu la yàlla dogalee ak tuubam tàbbi ca lislaam alhamdulilah pour nga ne kon jàng affaire la mais dégg beneen affaire hmm. daawa affaire la mais xam daawa benn affaire la mën a récupérer nit benn affaire la xam nooy jàkkaarloo nit ñi beneen affaire la kon imam Assane Cissé am na tawfiqul ilahiyya du dund bu perte hmm. dund la boo xam ne mën nañ ci jël ay maaqis wala ibarat mën nañ ci jël ay leçons hmm. jël ci ay fàttaliku jël ci jël ci jël ci jël ci ba ila macha allah lay jox benn firnde boo xam ne Euh, su fekkee sama fàttaliku nagu ma jàpp naa ne bu doonut quatre vingt seize doon quatre vingt dix toog naa man ak moom ak benn base ci bureau ñu waxtaan mu ne ko dama am voyage bu may dem Amérique mhm. benn base na ko yow day sëriñ bi liggéey bu bi ngay def ci biti booba amaguñ télévision rajo la ñam liggéey bi ngay def ci biti mhm. euh, dama bëggoon sooy demee ci lu ñu mel nga jéem a waxtaan ak man su suñu xam koy toll ñu man la koy transmettre en direct mhm. daajuree na ko xam naa ne sax sëñ bi lu war a nekk la lu baax la lu rafet la wante dañoo ne ci liggéey boo xam ne euh, buñ fañoon ñi defaale ko nii ba ci kanam ak kanam pour wan la rek maanaam ak ak ak bëgg di àddinaam dëgg la parce que bëggut mu fës mm-hmm. donte ne fësal gi dara nekku ca mm-hmm. bë bëggut leneen tabbi ca donte ne dara nekku ci dëgg la pour wan la na lay kon yàgg na xeex di liggéey ci lislaam mm-hmm. jotaay bi ma mujj a def ak moom firndeel ma ne fii ci réewi Afrique yi dem naa ci jotaay boo xam ne kere li ma la fa tuub ci wàllu dugg ci lislaam mhm. defe naa bu fekkee sama fàttaliku ndax ma plus ñaar téeméeri nit ci benn jotaay mhm. kon mel na ni ay Sénégal yëpp a ñàkk réew mi yëpp a ñàkk mhm. ci lim doon liggéey ci diini di ko liggéey ci mbokk gi di ko liggéey ci njaboot gi di ko liggéey di ko liggéey di ko liggéey jërëjëf Cheikh Tidiane bi tey Cheikh Ibrahim Mahmoud Niass Baye Tuuti moom it indi na ay seddem ci Imam Mahfouz Cissé gannaaw gi it waxtaan na ba dellu siwaat jaame yàlla yi moom it ñu déglu ko mooy baay nekk ci dëkkam ci kër nga nekk boo ko waxee baay kër gam dëkk sa kër la yéen a ci kër baay di leen nangul seen jaal di leen ko jaale parce que ki dem ñëpp ci moom njariñ la woon dëgg la ñeel Medina njëriñ la woon ñeel tarixa tijaan njëriñ la woon ñeel lislaam waaye njëriñ la woon tam ñeel humanité yëpp mandarga yi ci loolu li tax ma njëkkee Medina Baay gannaaw salawaatul xamsa yi moo leen koy jiite lu dul ci ngant naayibam yu uutu ko bu ajuma jotee moo leen di jiite bu ay day nii jotee moo leen di jiite mhm. buñ waroon a baaw naan moo leen di jiite mhm. kon kooka moom njariñ la ñeel dëkk bi mhm. ci yenn yiñ mën a xam ñeel tarixa bi nit ñaa ngi yokkoo ci moom di jël tarixa tijaan mu di leen waxtaanal ci tarixa bi kaset yi di tas ci àddina bi tiijaan yëpp di ko jariñoo njariñ la ñeel lislaam parce que ñaari at yii diggante Tchad ak Cameroun lim ci tuubal ci ñaari jataay mat na ñetti junni nit ñu ci internet bi ñu bind te duut ay baadoolo la tuubal ña doon tuub si ay buur yu ànd ak seeni dag lañ ñëw mbooloo yooyu yëpp tuub benn bi junne bi moom la ci maamam Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ndax moom moo ko defoon gaana moo toog ñaari jotaay tubaab bu duut jullit ñëw ne ko ndax xam nga ñaata nit a tuub ci yow bàyyi ne ko xaw ma ko te ñorut ma waaye ñu tuub te sell moom a ñor mu ne kon nangu nañ ne fukki junne ak juróom benn seize mille personnes fukki junne ak euh, juróom benn ci junne ñoo tuub ci sa ñaari jataay yi kon bu sëtam ñëwee lopp ñetti junne yi nit tuubee ci moom ci ñaari jataay xam nañ ne batt bee moo nàmpal lii wëcc ko fi loolu tam ñu sant ci yàlla ki dem moom dem bi bette na ndax kon xam ne yaa jiite mbooloo mi timis yaa leen jiite wasifa yaa jiite dog bi yaa jiite gée dem jaale ji dellu si jiite dog bi ci sa kër door a oo mu ñëw nga di ko dicté wasiya moom ba nga koy dicté wasiya la xam ne yaa ngi koy tàggu waaye ñi fekkewut bi nga koy dicté loola moom bett na leen wasiya bi ba muy pareat mu noppi bañ koy yëkkatee fekk dem na demin wi sedd na parce que deminu jullit la mosnaa ko nettali ci seen benn gàmmu ne am na leen ma wan leen tijaan buñ gërëm buy dee ni muy def ne deegaan ci sama tànk yi mi ngi ci eel bi mi ngi ci óom bi mi ngi ci pooj bi mi ngi ci ndigg li mi ngi ci dënn bi agsi na ci xol bi tudd yàlla sujjuut sedd président Mauritanie bii ñu coup d'état papam bi muy génn àddina dafay waxtaan ba mu yàgg mu jàllal bi ko jublu penku ne de ndeyam dafa war a sell dafa war a sedd ne allah akubar sujjóot siggiwut ñu yëngal ko mu daanu ñu xam ne dem na kon imaam it foofa la yéen waaye ni mu tàggoo xool ko jiite timis jiite wasifa jiite dog jiite gee tàggoo ak jullit ñi ci loolu jaaraatoo fekkoon ne donga nit kuy jaar ci lu naqari boromam sax jaaraatoo ca fam toog mag naan coffre-fort bi nanga mang ci maa ko may jumaa ji loola boobu tàggoo benn tàggoo gënu koo rafet li tax mu sell nag moom alxuraan moo ñu yónnantu bee ñu ko jàngal ndax daf ne doomu aadama moom yàlla moo ñu xamal ne bu juddoo ci sell la juddu bu doyee nasaraan wala mu doon majuus wala mu doon yahut ca yar ba la kon nit ki bu juddoo sell yaroo ci ñu sell fàq bi sey laa yooti ku amut lu bon mënta maye lu bon bu yaroo ci loxoy Serigne Aliou Cissé mi yaroo ci loxo Cheikh Ibrahima Niass nekk ci loxo Cheikh Ibrahima ba bi muy génn àddina London moo ko wéttale ku nekk xam na ne kooku jaarut ci fu muy jëlee jikko juy bon ñu dem jëli la ci njàng moo doon àggale ndax bi mu jàngee ba pare am njàngam fii ci Sénégal génn dem jàngi ci diggante Maroc ak Égypte ca la muy jàng ba pare njàngam ba mu dellu siyaatee bëgg lu dëppoo ak jamono ca la laxas dem Angleterre di jàngi ba mu jàngee ba am diplôme yam fa soxla woon mu laxasaat dem Amérique pour jàngi ca lañ ko oo mu dellu siyaat nekk ak maamam Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ba mu génn àddina mu ànd ak moom ñëw war delluwaat pour continuer ji am njàngam ñu dagg ko mu ñëw nekk wéttalal baayam 82 baayam génn àddina wasiyaam ba ak wasiya Cheikh Ibrahima jox ko jumaa ji mu dellu siyaat yore jumaa ji ba bi muy dem jumaa ji la mujj a tàggu ku nekk xam na ne kooku dundam bi yëpp daf koo mooñaale ak lu rafet waaye fi nekk nii imaam Hassan bu jógee tey di julli ji ci juróomi julli yëpp li lay wax ne imaam mi ngi fi te mooy jiite tey way laago yëpp danañ dawal seen puus puus yi taxaw de xaar te bu fekkoon ne buñ jullee ba sëlmal du leen jox dara buñ ko defee benn yoon buñ ñaareelee dootoo leen fa gis ña amut ñu am dañuy séddoo ña amut dañ koy toppi këram bu yegsee dana leen jox ñoom ñëpp te loolu xàmmeewu ci joxoon naa leen ci tusubaar du ma ko def ci tàkkusaan wala joxoon naa leen tusubaar tàkkusaan damay bàyyi timis waxtu yi mi julli si yëpp ci loolu la nekk kon wàlli joxe li ko yàlla joxoon xam na ne ci yàlla lay jógee moo tax daf ko doon delloo ci yàlla te ko bëgg a jox yàlla foog nga jaarale ko ci jaami yàlla yi loolu nag maamam la ko jàngee moo daan wax bañ ko waxee ne ko na ubbi compte mu ne jaru ko ndax lu ma ñàkk laaj ko son mu jox ma lu ma am delloo ko son borom ci jaamam yi loolu nag wax dëgg yàlla kon bind bu mokk la loolu ci la dund tey dégg naa ci suba waa Nations Unies di ko seedeel ndaw si ne li may sante yàlla mooy bi ma njëkkee taseeg imaam Assane fekk mu doon imaam te imaam liñ ko xamee mooy der bi kurus gi jumaa ji mu ne ma ñëw fekk ko mu gën maa dégg anglais ma ñëw fekk ko mu dàq maa manipuler ordinateur ma xam ni sëriñ bi sëriñ bu dégg jamono la mu ne may jëflanteeg moom mu ne fu mel ni Nigéria pikiir yi ñuy pikiir pour gone yi buñ laago Nigéria yëpp dañoo àndoon bañ ko ne buñ pikiiru imaam moo fa dem ci benn tàkkusaan mu waxtaan ak ñoom bañ pare ñu nanguwaat pikiir bi yàlla maye mooy ne itte yi doom aadama yi yàlla dana ko réglé ci sa loxo dana ko regle ci sa làmmiñ dana ko réglé ci sa loxo ngay génnee ci sa man-man di leen jox dana ko réglé ci sa làmmiñ ngay wax ñu di ci baaxee ku mel noonu nag fu mu jógee ku nekk xam na ne damm-damm la surtout bu leen bettee lim gàddu woon ku ko gàddu foo jógee rek damm damm la waaye nag aarif billahi yi dafay àttan lu bari néeg bañ koy dugal tey fekk na fa jëmm yu ko jiitu ku leen mën a muñ rek lu ñëwati nga man koo muñ li dem lum rëy rëy rëy jëmmam ji fañ koy dugal am ñu fa tëdd kenn ku nekk ba nga demee foogoon nañ ne àddina tukki na lañu may ñu mën a muñ loolu xam yàlla bu nekk ci dënn yi la loola mooy wane ne dara xew maanaam diggante jaam bi la ak yàlla dootul diggante jaam beeg jaam bi jaam bi la ak yàlla yàlla doomu aadama ji nekk ci kaw suuf ak ji nekk ci biir suuf ñoo yem ci moom amut ci ku nekkul ci moomee la xam nga kër gi ki nekk ci ëtt bi ki nekk ci néeg bi ñoom ñaar ñëpp a ci kër gi ku ci mën a wax sa morom ne nekkoo ci néeg kër gi kër gi su taxawee jëmmi yàlla ji ëtt bi bu taxawee àllaaxira néeg bi bu taxawee àddina néeg bi taxawee àllaaxira ki nekk ci biir ak ki nekk ci bitti ñoo yem ci kër gi ba tax yàlla moom ki nekk ci kaw suuf di dund ak ki dee nekk ci biir pax mi ñoo yem ci moom ku dem ba dàq sa lépp nag oote ne yow ci jëmm yàlla jàngat boobu xoolaay rek nga mën a am ci ki nga xam ne mi ngi dund ak ki nga xam ne mi ngi dee ci liñ koy tuddee loolu nag su fekkee ne nitan ca maanaam wéttal moom Cheikh Ibrahima daf ñu ca jàngaloon bind ne woon na bu ngeen di wéttalikoo nit bés dana ñëw ngeen wéet parce que dana fa jógee booy wéttalikoo yàlla nag lu ñëw da nga ko xoolee bëti yàlla bi di ko wéttali ko waaye su demee nga xam ne yàlla mos ta jógee fii te mënu fee jóge loolu nag doy na lu ñuy defal pour ñu mën ko muñ tàmba la mu ko déparé in ana mittu la wax wala baqiya ila allah in ana mittu su fekkee ne man dee naa hmm. li may wax si nii hmm. la ngeen ko wayeel wala baqiya ila allah te kenn du fi des nag ku dul yàlla loolu mooy su fekkee ne dee naa te nag bu mu rëy ci yéen ndax danaa dee yàlla rek a fiy des hmm. moomu bind bàyyi jàngale woon muy wasiya bu muy bind ma ngay dem kon dootu boppam a muy bind waaye ñi fi des a tax muy bind boobu dars dafa war a nekk ak ñun choc bi dana rëy waaye li muy rëy rëy suñ delluwaatee ci liñ oote ne moom lañ dox nga daal di oyof nga oyof aarif rek moo man ci dëj muy muuñ aarif rek a mën a sant yàlla ci dëj kon nag ku yàlla may nga gindee ko ci yàlla ak koo mënti doon bu dëj ñëwee dëfal la dafay yomb li dem rëy na mais ki ko maye woon jugu fi te ni mu amee lu rëy amee ko lu tuuti te du ko ñàkk ba bés beneen bi ci def mooy la goo xam ne duy rag xamul rag bàyyi garab gu du rag la mango yi dañuy dañuy meññ ba mu yàgg mu ñor ñu lekk mu jeex mu rag ab diir léegi leen nga gis sax me garab gu meññ ñetti yoon wala ñaari yoon ci at mi mu yéem nit ñi waaye terewut danay rag waaye bàyyi moom garab gu dul rag la moo tax doom bi lu mu rëy rëy loo ko xemeem xemeem lu mu rafet rafet ci sa bët loo ko bëgg bëgg bu waddee it xamal ne buum googu meññoon ko dana lëngalaat beneen doom ëllëg te doom booba dana doon pelax dana màgg ba am xoox dana dijj dana xaay dana ñor ba yegg ca fa nga yeggoon pays Cheikh Ibrahima amut kuy dem te bàyyi waccut lu la uutu ci xam ci njub ak ci lépp nag moo tax dara demut maanaam càkkaar bi moom mi ngi fi bant bu fënax dañuy rocc rek waaye bant ba ñu indi bu bees lay doon te mooy tane bu fënax moom nag dundam pertut at yi yonent bi dund la dund soixante trois ans mhm. ku nekk xam na ne bu la yàlla mayee may gu yem ni bi nga nekkee ci yonent bi topp ko mu dëppale la dundam beeg sa dund bi mhm. te mu soo cee def lu dut li jaaroon ci loxo yonent bi mhm. soixante trois ans yooyu du perte loolu trois ans yi sax doy na loolu nekk ci vingt quatre sax doy na nekk ci lim nekkoon vingt quatre heures rek doy la pour sa lépp rafet jàngal ngeen ko ay kaamil yàlla na ko yàlla dëppaat ko delloosi ko ci yéen fajee ko seeni aajo yëkkatee leen ko ngeen kawe moom it rafet nañ njort ne Cheikh Ibrahima ak Cheikh na Ahmada Tidiane ak yonantu bi ña ngi koy teeru dëkk ak moom ca gën jaa kawe yee lii na yonantu bi moo ko waxoon moo toogoon saxaabaam yi wër ko mu ne leen ku nekk ka nga bëgg ngay dëkkaaleet yow mal xiyaam daal ne maa ngi di seedeel ne bëgg naa leen ni ngeen ma bëggee Aboubacar jóg daal di windeelu windeelu hmm. Omar ne ko yow mosoo ñàkk teggin ci kanam yonantu bi mu ne ko li mu wax la musta wax seedeel nañu ne niñ dëkkeek moom ci addina yow mal xiyaama danañ dëkkeek moom noonu ndax nee na ku nekk ka nga bëgg ngay dëkkaaleet te seede na ne ñun bëgg nañ ko seede ne moom bëgg nañu hmm. waaye xam nañ ne mbëgg wax ne ku ma bëgg a dab ci bëgg yonantu bi hmm. bëgg ngaa delloo si démb mbaa nga jël sa baaraam bi laal weer bi gannaaw yutta la bàyyi andi na kon dab ko ca loola tëna te nangul nañ ko ko ndax nda nu daanu la waaye nag mbëggeel googa tam ku nekk xam na ne imaam Assane dund na ko ci bàyyi ñu ne dund nañ ko ci moom moo tax ñu ne am nañ xel mu dal te nekk nii ñu daje fii kenn ku ci nekk yomal xiyaama boo fekkee sa sëriñ rek yaa ngi ci pegg yonent bi parce que koy fekk mu toog ñu sant yàlla ci loolu. docteur bi dem leeralut yonent ba bi ma ñëwee ne ko man mën naa koo dox ma dem yàlla defal ma ci tawfiq ma leeral ko ci diit bu gàtt dellu si bi ci boppam di yéemu en comment doomi sëriñ dana xam lii bàyyi na ma ne ko ñun xamuñ dara alxuraan rek lañ xam dañu yàlla taas ci barkeem yàlla def wattu téere bu màgg bii téere bu tedd bii muy karaamaam ba ca jota daje bu màgg ba yal na yàlla nangu ñaan googu nangu woon na ko yàlla na saxal loolu bu pencam yàlla nañu yàlla wërsëgalee alquran yàlla nañu yàlla xamalee alquran yàlla nañu yàlla leeralalee alquran suñu zaay ak suñu baatin yàlla na alquran nekk aw lay ñeer ñu yàlla bu mu nekk aw lay contre ñu barke alquran leeral na addina yëpp yal nañ ci yàlla leeral suñu addina leeral nañ ci suñu àllaaxira darajaay aljanna ma nga tolloog darajaay alquran ji laayee alquran ji moo tax ku dugg aljanna dañ naan la iqra tarq jàngal yéeg ngay jàng di yéeg rek ba ca fasa mokkal en foofa la sa daraja di imaam yal na yàlla yëkkati sa daraja ci aljanna ba ca daraja ya nga xam ne ñoo gën a kawee ci biir aljanna imaam dem waaye def na ak xanaa imaam ñu ñëw tàggatoo ak yow rek comme ni ñu daan baaxoo di tàggatoo. di ñaanal yàlla yàlla yàlla def barke ci seen rajo bi ndigal yu baax yi ci borom xam-xam yi def yàlla na ko nit ñi dégg te yàlla nañ ko jëfee lépp lu bon luñ ciy tere itam yàlla nañ ko dégg te yàlla nañ ko bàyyi ndigal li nag mooy li ngeen xam ci ndigal yi bàyyi rek ragal yàlla. ci lu feeñ ak ci lu nëbb ci jëfee ndigal yi bàyyi tere yi suñ ne ragal yàlla rek loolu lañ ci jublu bàyyi ñu sab mu ne sëriñ su mag sii ngay dégg mu Cheikh Ahmada Tijaani radiallahu taala anhu mu Sidi Abdul Qadir Jini radiallahu taala anhu ak mbooleem sëriñ yi ngay dégg mu defuñ dara lu mooy ragal yàlla topp ko ci ndigalam yi ba def ko topp ko ba bàyyi tere bi maqaama yi ngay dégg ñu di leen ko askan yépp yàlla moo leen ko may te manga suñu yàlla yi dara jeexut ba léegi ku ragal yàlla rek caabi jaangoog buntu baangoog mën ngaa dugg mën nañ ngaa tijjil waaw ndax wax nañ ne fa innahu laa yunaalu maa inda allahi illa bi taati yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wax la nekk fa yàlla ci topp yàlla rek lañ koy amee waaw te nit nag mënta oote ne dafa bëgg yàlla ba pare du ko topp innal muhibba liman yuhibbu muti'u soo soppee rek war ngaa mën a topp ki nga xam ne moom nga sopp dégg nga ci ay ndigalam ba def ko ci ay tere ba bàyyi ko moo tax Baye Niass wax ne ci yonent yàlla Muhammad sa alayhi wa sallam di dox rek moom mu ngi ca topp su taxawee rek mu taxaw taalibi yëpp wala jullit ñëpp sax yoon woowu lañu war a aw ci yonante bi yu dox ñu topp ca su diglee ñu def su teree ñu bàyyi jeex na lu te loolu itam alquran la wa ma ataakum rasulu fa xuzu wa ma nahaakum anhu lu leen yonent bi indil jël jàpp leen lu mu leen tere bàyyi leen waaw yoonu texe daal mooy yoon woowu waaw li yonent bi dikkee def leen nañ def bàyyi leen nañ bàyyi loolu daal ku ko def yow yow yaa ngi yaa ngi ci yoonu aljanna yaa ci yoon woo xam ne man na laa bi bi texe àddina ak texe ëllëg ci àllaaxira yàlla nañu yàlla may ñun ak yéen ñëpp texe àddina ak texe ëllëg ci àllaaxira barke yonent bi sallallahu alayhi wa barke Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu taala alhamdulillah mbokk yi li mooy ëtt bi nga xam ne at loon nañ ko Imam Alphonse Cissé di ko ci doon fàttaliku lenn ci ay kàddoom ci liggéeyam ci lislaam ak ay seet yoo xam ne jaare jugee na ci ay jaami yàlla jëm ci ci moom seede bi may mujj indi rek damay wax ne al Imam Alphonse Cissé ku mataloon la ndénkaane maamam Mawlana Cheikh al Islam Hadj Ibrahima Niass tànn naa benn pour wax ko muy ci Kossy nga xam ne bàyyi ci dundum gu mujj gi wax na ne gis na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Mawlana ñaari yoon ñu ngi koy wax ne ko na nga dundalaat Kossy Kossy goo nga xam ne fa la bi tàkkee fa la faydu bi déparé imaam ci dundum bu mujj dem na Kossy mottali na jumaa ji nga xam ne Mawlana Cheikh Ibrahima Niass moo ko faral doon yóbbu na fa courant. yóbbu na fa ndox moo tax benn bis moom li ngay waxtaan ci téléphone maa ngi koy wax na ko way wi nga xam ne xajabulaa ñes am na ko ca tey ba ñeseen muy way wu rafet yow tim jàppal na bis ki tey am nga ko ci kursi imaam ñu koy ñaan yàlla yàlla yàlla yokku leeram yàlla na ko yàlla yëkkati dugal ko ci aljanna yaa ngi lii na mbokk yi lii la ñuy waxtu joxoon ki la doon présenté waxtaan wi seen mbokk la seen xarit baay bi tey wala baay ñëf bi tey maa ngi jégalu ci kàddu yi lu ci rafet ci yàlla la lu ci ñaaw ci mën a ndax yàlla mooy jëmm ji nga xam ne mooy aji mat ñun nag ñooy cër yi nga xam ne dañoo mat di ci jëmmam jëmmam yàlla wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah